fii dafa nekk loo xamante ne kenn mënu koo na euh, kenn mënu ko natable mooy banditisme boo xamante ne kenn xam lu ko waral tas Sénégal toroxal Sénégal def Sénégal indi fi kaw boo xamante ne kenn du amati jot pour mën a utiliser pétrole bi de ce fait nag dañuy utiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy seen i marionnette muy opposition bi pour que ñu mën a ñëw succès yi nga xam ne utiliser suñ pétrole yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñun ñoo ko moom donc tey état comprendre loolu force de l'ordre di comprendre loolu am benn degré de maturité bi ñu am pour vraiment garde jàmm ak salaam bi nga xam ne suñ maam yi dañ koo xeex ñun mënuñoo nangu suñ maam yi xeex jàmm ak salaam Sénégal yàgg ci jàmm xam jàmm di dund ci jàmm opposition opposition boo xamante ne ay nit ñoo nekk ci ginnaawam di koy utiliser ci di koy jox ay moyens pour ñu mu yàq jàmm jooju ñun loolu dañ ko nangu.